waaye man du ma xalifa man xaadimul ummati laa uridu an akuna xaadiman lil ummati te loolu bàyyi moo ma ko ñaanal <coughs> lettre bi ma mujj bind daf ma wax ne euh, wa asalullaha tabaraka wa taala an takuna nafan lil ummati an takuna nafan lil ummati ah donc man xaadimul ummati la waaye du ma xalifa xalifa xalifa yi ñu ngi noos ñu ngi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 nit dafa war a yëkkatiku te ni ko bëggalee sa bopp noonu nga ko war a keneen salaamaaleykum wa rahmatullah daayiratul fadli kuñ fornome war ngay sant yàlla ñun lay tijil gëstaloon sidi baram